li ngay xaar ci ñun loolu ngay gis ci ñun doon ñu nangu ndigal doon ñu doylu doon ñu dal lii ñu dëgmal nag ñu ciy talal loxo nga ñaanal ñu yàlla def ci jàmm def ci jàll may ñu ci ndam parce que ndam liñ ciy wut ndamu réew mi la ndamu askan wi la parce que fii ñu tollu liggéeyal askan wi dafa jot muy suñu yéene di suñu bëgg-bëgg mais lépp nag Mbàkke ñu bëgg mu doon ci jàmm mu bëgg a doon ci jàmm doon ci dal doon ci lu wóor loolu daal mooy tànk yi di la ñaanal nag yal na yàlla dëgëral tànk yi fëgg bopp bi may la wér wér la jërëjëf nee na loolu rek mooy yéeneem ci yéen lu mu ñu sant loolu la ñuy def nee na loolu mooy yéeneem ci réew mi jërëjëf na kon nag jërë ngeen jëf mi ngi mi ngi sant bu baax ci taxawaay yi ak yi tey nee nee na xolam set na xelam dal na nee na mi ngi gën a am yaakaar di gën a am ak rafet njot nee na mi ngi gën a ñaan nag nee na borom mi def di dindi def jàmm ci def jàmm ci réew mi def jàmm it ci xol yi nee na jàmm nun ñépp noo ko bokk kon nag jërëjëf nee na mooy kàddu yi nga wax rek nee na tubaarkàlla lool rek mooy yéene moom jërë ngeen jëf nee mi ngi sant bu